suñu yoon yi bokkul euh, souvent c'est des gens issus de l'informel secteur informel la ñu jógee donc euh, en fait euh, ñu ngi jàng jàng nañu xam-xamu bi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci mbedd bi man j'ai plutôt eu un parcours académique donc jaaree ci processus yooyu ba may immigré dama yor samay kayit ñëw jóge Europe ba may ñëw ba tey amoon naa kayit bu ma mën a duggee ci réew mi la ñu def ma maîtriser wu ma ko mais il faut beaucoup de courage et une grande envie de réussir, une grande envie de se réaliser. Donc ce capital-là, mais certainement, autorité, il faut nous voir comment on va encadrer ça. Éventuellement, nous euh, voir avec les États-Unis, il y a un créneau, il y a un couloir au niveau de la coopération. Euh, si nous savons, nous savons, nous ci am yenn compétence professionnelle ñu xool naka lañ leen mën a insérer dans le tissu professionnel américain parce que l'Amérique est une terre d'opportunités et c'est une terre d'immigration qui accueille à bras ouverts tous les braves et tous les free so these boys ñoo xam ne la dañoo free dañoo brave donc am nañu place Amérique nañu xool naka lañ leen di facilité seen intégration parce que ku jéggi tali euh, couloir yooyu ñu jaar frontières yooyu ñu jaar métit yooyu ñu enduré ba yegg si fii c'est parce que tu as envie de réussir te tu as déjà l'esprit américain en toi